mbokk yi baaxoo di teewlu xibaaru Bambouck dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. actualité locale. ñu di ko tàmbaleek eh, liñ nam xaar eh, Koungheul muy démb muy publication list ñi nga xam ne eh, daal dinañ leen di retenir ngir ñu war a jongante élection locale yi war a am 23 janvier 2022 autorité administrative ak territoriale yu nekk ci Koungheul daal dinañ koy amal di xamle nag lu toll ci lu ëpp 53 liste ci département bi daal dinañ leen bàyyi ngir ñu mën a bokk ci jongante boobu loolu nag ñu mën cee lim fii ci commune ak département bu Koungheul euh, li si lu ci mel na euh, le partie PLD la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, la coalition yi wàllu Sénégal la coalition Sénégal 2035 Nafoore muy beneen coalition bu bees la coalition Yewwi Askan Wi le parti euh, socialiste ak la coalition defar sa gox bi ko tëj nag mooy la coalition ëllëgu Sénégal yooyu nag ñoo nar a euh, jongante li nga xam ne ñooy euh, baatu askan bi fii ci commune bi ak département bu Koungheul. nga xam ne mooy dal di teewal fële ci Miss Sénégal 2021 région de Kaffrine muy Mati Ndaw di candidat Bambuk daal dinay dajeek euh, leader yi autorité euh, yu nekk ci euh, région de Kaffrine ci loolu nag ñu daal di koy jàppale ci wàllum koppar jàppale bu am solo ñu mën cee lim ki nga xam ne mooy DG Alioune Badara Ly le parrain muy parrain di Abdoulaye Seydi Sow sa marraine muy Socé Diop Dione le ministre Mayacine Camara Euh, El Hadj Mohamed Dieng ak l'adjoint au maire ki nga xam ne mooy Madiama Seck ñoo ñëpp daal dinañ koy euh, dalal di ko ndimbale ko ci wàll xaalis ngir mu mun a waajal final boobu gannaaw loolu nag moom Mati Ndaw nekk candidatu euh, région de Kaffrine rawatina Koungheul di Bambok daal dinay woo askan bi yëpp ñu daal teew tey fële ca Grand Théâtre ngir jàppale ko mu mën a gañe loolu muy final boobu noonu. actualité nationale. le maire de Mermoz Sacré-Cœur muy Barthélémy Dial daal dinay seeti. Euh, askan wi nga xam ne am nañ gaañu gaañu àllarba gannaaw ba amee ay jafe-jafe euh, bañ ko wooyee ci euh, tribunal loolu nag mu ngi am gannaaw ba nga xamee ne convoqué nañ ko ci affaire bu ñu naan affaire Ndiaga Diouf gannaaw ba ñu ko attaqué deux mille en 2011 ci mairie mu am ku ci ñàkk bakkanam moom nag daal nay dem suma municipal boo xam ne Grand Yoff la nekk ngir fekk ji ñooñu noonu daal di leen massawu bu baax a baax a baax. gannaaw loolu tamit daal dinay dem fële ca euh, seeti ki nga xam ne mooy président grand parti di Malick Gakou nga xam ne Euh, takk der yi dañ ko daal di nappaaje keroog ca euh, événement boobu le président du conseil départemental bu Kaffrine Adama Diouf moom daal daal dinay xam ne askan bi ne euh, bañ ko tabbee ci bopp conseil département bi daal dina fay def bilan bu am am solo loolu nag mu ñëwaat ci lu yaatu ci secteur environnement éducation sport ak santé ak ndimbal gi nga xam ne jox na ko woy néew doole loolu nag ba mu ko xamee ba pare daal dinay wax ne ki nga xam ne la fii moo ko fii wuutu lépp lu mu bëgg ci jàppale ndimbal dina ko def jàppale ko ba li nga ko dénk mu mën a ñoon jëm kanam. actualité internationale. Euh, la ma fële nag euh, askan wi naqar lañ am mooy si mooy fële na ci. Euh, nord bu Kiwi gannaaw ba nga xamee ne daal dinañ fay def état de euh, siège armée bi nag ñoo ko fa def li nga ñi nga xam ne nag ñooy militant wu euh, lutte pour le changement ñu toll si fukk ak ñett di nañ leen teg yoxu lóbbu leen ci justice militaire ngir àtt leen gannaaw ba nga xamee ne daal dinañ manifester pour ñu daal di yëkkati li nga xam ne mooy état de siège boobu noonu ñoom nag li nga xam ne ci loolu mooy askan bi foofu dañoo sonn te loolu di état de siège bi duñ ko mën a dëkku sport ci wàllu tàggat yaram ñu daal di àddu ak tournoi honorable député Fanta Sall war a am uh, tey ci stade municipal bu Koungheul tey nag affiche bu fay am mooy entre lycée garab gi ak uh, lycée jamono nga xam ne bii mooy ñaareelu yoon uh, ñuy daal di tese ci saison bi gannaaw ba nga xamee ne njëkkoon nañ daje si championnat bi tey nag ñu war a jàkkaarloo 15 de et fu fële ci stade municipal war xëccoo li nga xam ne mooy kan moo war a qualifié ngir dam li nga xam ne mooy quart de finale ñi bëgg match bëgg sport ñoom ñëpp daal di nañ koy waajal.